pardon pardon baray baray Vai, vai, vai. Vai, vai, vai.

après groupe après groupe groupe harmonie bi groupe harmonie bi. Gracias. Baba. Ça va, merci beaucoup, ça va, alhamdulillah. Madame. Baba. taxawal bu jàngee daa bëgg yàlla.